auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ak seen site internet assalaamy point net ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér noonu lañ koy ñaanale mbooleem kilifa yi dina yëpp di ñaan yàlla suñu boroom wàccewaat jàmm xéewal mbas mi ci àddina bi yëpp mbokk yi tey ñu am mbégte ci jotaay boo xam ne ñu ngi koy amal di ci dalal ki nga xam ne moom moo di Serigne Abdoul Aziz Diop Serigne Abdoul Aziz Diop nag bu ñu ko waxee xel yépp day dem ci Guy Mbind TV di chaîne boo xamante ni moo koy administré mu nekk fii ci Touba waaye mu nekk surtout Serigne Niane Diop ci fànn googu sax lañ fas yéenee waxtaan ak moom ndax daa bës boo xam ne moom la ñuy waajal ñu jagleel ko jëm ju tedd jooju laataan ciy xuus ñu bakko mu nuyoo rek Serigne Abdoul Aziz ñu ngi lay nuyu di la jërëjëf Cheikh Mamadou ñu ngi leen di baax te di leen siyaare di siyaare mboolem ñi nga seqal liggéey ba Assalaamy TV yëpp te di leen jaajëfal si dalal gi ngeen ñu dalal ngir ñu fas yéene waxtaanee suñu jàmbaar ju tedd ja sëriñ ñaan Diop. waaye si biir nuyoo bi ñu si jiital suñu kilifa gu màgg gu tedd gi di Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des it di ko ñaanal suñu borom defal ko fan wu gudd loolu ba ànd ko wér. ba yéene ji nga xam ne am na ko yéene liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul suñu borom defal ko kàttan ak fekkee ba mu defee ko nu mu ko soobee ànd ak taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp waaye di wàccee ñaan googu di suñu xalifa bii di sëriñ Moustapha Mbacké xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara di kilifa gu mat kilifa te oyof lool te doo waxee xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu ne man jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara la mboole mboolem njaboot Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gépp man seen seen seen seen seen seen donga la lool loolu rek lay woote kon nag ñu ngi koy ñaanal baax a baax muy gu mat kilifa mm. waaye di ñaanal sëriñ Moustapha Diop di kilifa gu mat kilifa moomit it woyof lool ndax euh, damay wax ne dafa nuroo doxin suñu jàmbaar ji di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha gis nañ ni mu nekkee woon ak xalifaam yi ko fi jiitu woon kilifaam yi ko fi jiitu woon mm-hmm. Cheikh Saalihu Mbakke Cheikh Serigne Alhaji Baara ba Cheikh Sidi Mokhtar baa xam ne mën nañoo wax ne sax liggéey bépp moom moo ko yan woon Serigne Moustapha Diop mi nag loolu da ko daloon mbooleem njabootu Serigne ñaan gi nga xam ne ñoo fi jaaroon doon ay yan bi ak liggéey bi moo ko yoroon doon doxal ba tey suñ borom teg ko ci loxo am kon nag ñoo ngi koy ñaanal suñ borom yàggal ko fi lool te defal ko wér ba yéene yi nga xam ne moom it am na koy yéene liggéeyal Serigne ñaan Diop si toolub seexul xadim suñ borom defal ko fan gudd loolu ba ànd ko wér ba liggéey ko nam ko soobee. di leen jaajëfal tey am mbégte bu baax a si dalal gi ngeen ñu dalal ngir ñu fas yéene waxtaanee suñu jàmbaar ju tëdd jooj di Serigne Niane Diop. jërëjëf sëñ Abdoul Aziz euh, jàmbaar ju tëdd jooju muy Serigne Niane Diop yal na yàlla yokk ay leeram taas ñu ci barkeem mu mel nii dañ koy bëgg a fàttaliku bës boo xam ne moom lañ ko jagleel di bésub ñaan ak euh, fàttaliku ko. mu fas yéene doon euh, samedi bi ñu dënmal war a doon euh, fukki fanag ñett ci euh, février muy le 13 février 2021 bi mu mel ni sëriñ Abdou Aziz ñu ngi fàttaliku sëriñ Niane Diop tey boo ñu bëggoon a wax ci tënk sëriñ Niane Diop mooy kan. jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadal ñoo ngi sant bu baax a baax a baax te am bu baax a baax si laaj bi nga ñu laaj ngir ñu fas yéene tënk lu gàtt rek. si suñuy jàmbar jooju di sëriñ ñaan Diop ndax mën naa ne jëmm la joo xam ne waxtaanee ko si ay minutes dana jafe waxtaanee ko si ay bis dana jafe mën naa ne weer bi doo ko si bëggoon a tënk ak dundam dana jafe kon dañ say tënk lu gàtt rek ngir ñi ngi xam ne ñoo ngi seetaan ak bis bii ñu koy waajalal di bisu màggalu kër sëriñ ñaan ñu am tuuti loo xam ne dinañ ko xamee si sëriñ ñaan sëriñ nag kenn la woon ci mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di mag ñi nga xam ne fekkoon nañ ko si xumaag lu jiitu muy dem si tukkeem bi di jëmm joo xam ne suñu boroom te féexale ne ko mu bokk si mag ñi nga xam ne mag yi lislaam lañu woon nekkoon mag moo xam ne mbooloo toppoon na ko lu jiitu muy ànd ak Seexul Xadim yoroon ay daara daal si jàngale alxuraan waaye suñu boroom te féexale ko si jëmm joo xam ne yaa ngi liggéeyal suñu borom ju nekk laataa ngay ànd ak seexul xadim bu la suñu borom dimbalee di nga xam ne am na lu des si sa liggéey loo xam ne si seexul xadim nga ko war a mottalee waaye suñu borom dimbal na ko mu teel a xam loolu ba bi mu nekkee si liggéey boobu daana toll ay jamono yoo xam ne day nekk si àll bi di dox. dox wu sori wala léegi-léegi muy wax nañ ne muy def ay mbaar ci àll bi ba ay mbokkam jàppee woon nañ ko benn kenn koo xam ne mel na ne xel mi dafa xawoon a naqari mm-hmm. waaye loolu lépp it mu xam li mu xam xam lim dëgmal xam ki nekk ci kanamam mm-hmm. fekk booba suñ borom mi ngi koy taw féexale mu war a gisanteeg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nekkam Seexul Xaadim nag mm-hmm. doon loo xam ne lu ràññeeku la waaye si fu boppam ak fàggate fu boppam nekkoon na nit koo xam ne daray àdduna jublu ko woon ndax mën naa ne ñu baree bari si seex yi nga xam ne ñu ngi koy liim wala ñu ngi leen tudd néewaa na ñoo xam ne fi ñu toll doonee sëriñ ñaan Jóob sax dinañ laajaat loolu nag li ko waral fu boppam la woon woo xam ne jaayante nag ak seexul xadim ngir maanaam lépp loo xam ne mbirum àdduna la suñ borom musal ko si te lépp loo xam ne jëfal na ko sëriñ bet ak fayam mu doon ëllëg moo tax ñaanu dara àdduna lépp loo xam ne lu ñuy fàgguteefu àdduna la ñaanoon na ko seexul xadim ngir mu denc ko ko ba ëllëg fa nga xam ne foofu la ak fay amee njariñ mu joxe ko ko fa loolu nag bokk na si ay ñaanam si diggante mu seexul xadim waaye ñu bare bare dañuy wax ne sëriñ ñaan Diop seexub seex Mouhamadou Lamine Bara mm-hmm. loolu li ko waral mooy Cheikh Mouhamad Lamine wax na déglu nañ ko si ay kilifa yu bare bare mu seexul Khadim kilifa yu bare bare natt nañ ko mu wax ne toolu baay bu nekk doom sañ na fa fàq mbool mm-hmm. waaw loolu nag de ak jagle goo xam ne Cheikh Mouhamad Lamine Bara xam na ko te kenn ku nekk xam ne ne Cheikh Mouhamad Lamine Bara jàmbaar woon joo xam ne kenn ku nekk xam ne ne ab cëram digganteem ak boroomam waaye bu demee ba mag ñi ànd ak Cheikhul Khadim bari lool takku genn takku gi mm-hmm. mu sepp si biir mag ñooñu kenn ku mel ne Serigne Niane Diop kon kooku maanaam am na lu mu gis si moom te xam na ne kooku borom borom maanaam tànneef la si mag ñooñu moo tax ñu bari bari di wax ne Serigne Niane Diop seexub seex Mouhamadou Lamine Bara waaye Serigne Niane Diop lu jiitu muy ànd ak seex Mouhamadou Lamine baara seexul xadim la nekkaloon seex sa digganteem ak sëriñ Serigne Bara fàggateefu Serigne Bara digganteem ak Serigne baara sëñ Baara maam moo moo sàkku digganteem si sëriñ Touba waaw moo moo nekk ndax sëñ Baara kenn ku nekk xam ne ne daaw toog daana nekk si di dox si di dem si dëkk yi di faj aajo yi tey daa faral am ay ngan tukki yoo xam ne da ngay amal si yeneen dëkk yu fasanti ko muy liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la woon waaye liggéey boobu doonul woon liggéey bu ndaw waaye gis na pasteefu sëriñ ñaan ndax fekkante naa ak moom lu baree bari si keppaaru Seex Xadim ak ràññee ab liggéeyam ba xam ne maanaam liggéey bi muy liggéey ànd ak jëmm ju mel ne sëriñ rek moo ko moo ko si mën a jàppale ba dem na ba si sanco guy mbind bii ndax guy mbind gi guy mbind gii sëñ sëñ sëñ sëñ ñaan moo ko sancal Seex Muhammadu Lamin Baara ba am na lu yéeme loo xam ne wax nañ ne sax xew na si sanc boobu ndax sanc bi bi ko Seex Muhammadu Lamin Baara di sañculoo ci ndigalu seexul xadim da kaa jox ab àpp àpp bi nag ci ñetti weer la ko sëriñ Baara wax ne damaa bëgg nga sañcal ma guy mind waaye bu yàggee ba yàgg nay na na na na toll ci ñetti weer së sëriñ ñaan ci ci benn bis la ko sañcal guy mbind si benn bis la ko guy mbind gor nañ ko li fi war a li ñu war a sanc dëkk yëpp sancalee nag guy mbind si si bis bi waaw jiitu sa nag ginnaaw bi ñu balee ba rado xeet yooyu yëpp ba setal fi ñu fi nga xam ne moom la ñu war néegi mm-hmm. dafa jiitu si moom jëmmi boppam dem ba kër sañaan simpi néegu boppam simpi sàkket ya néegi soxnaam yëpp mu simpi ko woo taalibe yi. ñaan am e, mm-hmm. mën naa ne kër bi e, sëriñ ñaan bi mu koy sanc mm-hmm. si ndigalu Seex Xaadim la ko sancee woon ndax sanc e, kër sëñ ñaan ndax Seex Sidi Muxtaar yàlla na suñu borom yokk leeram taas si barkeem. am na jamono yoo xam ne dafay yëkkati aw nag jox ko waa kër sëriñ ñaan ne leen dama bëgg maanaam dëkk dëkk bii di daaru salaam kër sëriñ ñaan Diop mooy indi daaru salaam ndax ñu bari jamono yi doo déggee ak doo gisee lu bari ñu koy bind si kër sëriñ ñaan mm-hmm. da ngay gis ñuy def daaru salaam kër sëriñ ñaan Diop mm-hmm. ñu bari na kër sëriñ ñaan lañ miin waaye Cheikh Sidi Muxtaar moo fi indi turu daaru salaam daaru salaam googu ne li ko waral mooy sëriñ bi ku tedd ki dafaa mas a jaar kaalam wadd fa mm-hmm. mu daat koy daal di xamal ne suufu daaru salaam si de moo may xamal boppam waaw suufu daaru salaam si moo may xamal boppam loolu nag biñ demee ba jëmmi jamono Cheikh Sidi Muxtaar yeesal loolu daa ne dama bëgg bërëb bii ñu koy woowee daaru salaam kër sëñ ñaan Diop moo moo kon looloo waral daaru salaam kër sëñ ñaan Diop kon daaru salaam moom sa bu njëkkit ku masaa jógee kër sëñ ñaan da wax tuubaa laa jëm ndax lan bokkul woon si tuubaa diggante bi waaw si Touba te gis nga diggante bi tam gàttee te léegi fi ñu toll nii Touba dem na ba dànd ko ay kilomètres ah, waaw kenn kenn xam kenn xamul nu mu toll loolu lépp nag di fàgguteefu waaju baax hmm. kon kër Sañaan moom ak moom ak guy mind waaye bi bi ko sëñ Baara sancloo mu yëkkati ay néegam daa di woo mboolem taalibe nag boo xam ne fas yéene nga ànd ak moom si liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi ngi ko koy liggéeyloo na nga ñëw fekk si ko si liggéey bi taalibe yi kenn ku si nekk moom it def na moom lépp loo xam ne am nga ko si sa kër nga jaayante ko indi ko ñu sampal ko Cheikh Mouhamadou Lamine mooy sanc guy mbind si biir sanc boobu lu yéeme xew na fi ndax si sur bis bi biñ xamalee Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ne ko sëriñ daa mel ne li nga ko doon liggéeyloo mat ma mel na ne jóge na ko kaw ndax nitu yàlla moom li ci kanamam dara ump ko dara ump ko waaye bi mu ñëwee jëfi sëriñ ñaan kawe na ci moom lool ba tax waaw pasteur bi mu si wane ba tax maanaam waxtu julli bi nga xam ne moom la moom moom la tombé leen ba mu fay ñëw sëñ baar dañ ko ñaan jiiteel julli hmm. si ñaan si taalibe dafa deltu ginnaaw ñeme wut a jiite Cheikh Mouhamadou Lamine Bara sëñ Baara daat koy fàttali ne ko ndigal nga ci am doxal nga jiite julli ñu julli ba pare mu ne ko ñaan jëf nga jëfi malaayika waaye des na la fay fayuk malaayika si kàddu yi ñu jokkalante si biir loolu sëriñ ñaan moom it jëlee si ab jëll mhm. yëkkati ay njabootam yu jigéen jébbal ko Cheikh Mouhamadou Mbara joxe ko àddiya ndax doo xoolee guy mbind ak kër sëñ ñaan jaxsoo nañ jaxsoo goo xam ne loolu moo ko sabab mhm. ndax doo xoolee sëriñ Baara am na sëtam yoo xam ne Jóob lañ sant nekk ci kër sëriñ Ñaan Serigne Ñaan mm-hmm. am na sëtam yu bari yoo xam ne ñu ngi Guy Mbind sant Mbàkke li ko waral mooy uh, am na ñu ñu bari ñu si ràññeeku mm-hmm. lu mel ne Serigne Xaari Moodu Baara jàmbaari xelkom kenn ko fàtte koy ñaanal suñu borom yokkale am taas ñu si barkeem mm-hmm. Serigne Abdou Karim Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekk di doomi soxna Awa Jóob Serigne Cheikh Assis Serigne Assis laat yàlla na yàlla yokki leeram moom it jiitu na ak ñeneen ñu baree bari bari ñu euh, ba si waa kër sëriñ Basiiru yi sëñ Laat Baara kenn ku si nekk njabootu sëriñ sëriñ sëriñ ñaan ma nga mm-hmm. loolu nag di jëf joo xam ne jëf ju rëy la joo xam ne kay woon na si sëriñ ñaan ba tax sëriñ ñaan yëkkati addiya ju toll noonu si ak njabootam dool ko Cheikh Mouhamadou Bara ba ba ba ba mu jur lu mel noonu mm-hmm. jërëjëf Cheikh Abdou Aziz leeral yi am na solo lool ci jàmbaar ju tedd joojo nga xam ne ni nga ko waxee rek euh, fekk na Serigne Touba ca Xomaak bokk ci mag ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak Cheikhul Khadim liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal doomu Cheikhul Khadim mel ni daa boole ñaari ngërëm am ngërëmal Serigne Touba am tamit ngërëmal euh, doomu Serigne Touba. gis nañ tamit ni nga xam ne noonu la jaxasoo ñoom waaye mu nekkul daan yare daan tarbiyee te sanc Euh, ku ne xam na ne quartier Sëñ Ñaan bokk na ci quartier yi gën a mag ci dëkk bi nga xam ne moom moo di Touba waaye comme ni nga ko waxee sànq rek jamono yi ñu koy sanc xawoon naa sori waaye tey bokk nañ ci quartier yi nga xam ne ñoo gën a jege dëkk bi nga xam ni dëkk bi màggee mu mel ni jëmm ju tedd jooju mu bàyyee bàyyeekoo fi wuy ji suñu borom mu mel ni dañ koy fàttaliku at mu jot ba tax na yow nga ci amal bés boo xamante ni da nga ko jagleel muy sa sa sa sa maam euh, bés boobu naka ngeen koy waajalee ak naka lan ngeen fas yéene def ci bés bi. waaw jërëjëf Cheikh Mouhamadou Fadal si laaj boobu xam nga nitu yàlla bu fi bàyyi ko bàyyi fi njaboot gu baax dafay jaadu ñoom ñu xam fàgguteef fi nga xam ne seen kilifa googu fàggul na leen ko mooy fàtte wërta dox seen digganteeg la leen jox cër ba ñu yore muy war nañu waxtu wu nekk maam lii day bis bu gën a fees waaye kenn ku nekk xam na ne mosuñoo jóg si def ay ñaan walla wàccee kaamil di ko jagleel sëriñ ñaan Diop waaye mënta ñàkkit bis boo xam ne at mu jot ñu fesal ko woo si mboole mbokki taalibe yi njaboot gi yëpp fu ñu mën di nekk ñu daje si benn bërëb jëmmal ko tuddee ko jëmm ji ñu ñaanal muy sëriñ ñaan Diop ba ren xam nañ fi jamono ji toll mu tombee jamonoy mbas mi di ñaan suñ borom jëlee ko fi si jàmm ba mu set wecc bakk Cheikh Xadim Mbacké waaye am coppeel goo xam ne am na si comme ni ko ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe ndax ku nekk xam ne bis yu yu baree bari jaar na fi Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndigal ngir ñu amal njàngum alxuraan ak njàngum xaside mi te wàññindiku yenn ndaje yi si lu dul maanaam farata loolu it ndigal loolu moo wëy ba wàcc Cheikh Mouhamadou Moustapha xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yàlla na fi ak loolu te ànd ko wér moom mi nga xam ne mooy kilifa ak sëriñ Moustapha Diop xalifa ak sëriñ ñaan Diop. sëñ Moustapha Diop moom it jël ndigal loolu wéyal ko si bis bi nga xam ne mooy bisub sëriñ ñaan Diop bi jox si ndigal mboolem njaboot gi. ñu jëfe ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko. muy màggal gi naka jekk moom màggalu bëccëg la daa doon moom daa doon daan màggalu guddi la daa doon. Cheikh Sidi Muxtaar jamono yi mu fi nekk moo ko def màggalu bëccëg. waaw ba nii biñ koy amal nii màggalu bëccëg la daa doon. waaye ba tey kon ñun mel ndigal li ñun bi mu ñëwee si ñun sax yàgg na mm-hmm. ndax da euh, màggalu bëccëg Cheikh Sidi Moukhtar moo ñu moo moo ñu joxoon ndigal ñu def ko màggalu bëccëg kon ndigal loolu la sëñ Moustapha Diop xalifa sëriñ Ñaan Diop jot si sëriñ Moustapha ba màggal gi incha allah màggalu bëccëg la war a doom mm-hmm. waaye dafa am coppite gu si am dafa am soppeeku gu si am muy kenn ku nekk defee ko bërëb ba nga nekk mm-hmm. sëriñ bi daa joxe ndigal kenn ku nekk bërëb ba nga nekk nga defee ko fa looloo tax nag ñun comme bisu bu mel ne bisu jàmbaari lislaam ju mel ne Serigne ñaan Diop bisam warta ñëw ba jàll te wanuñu kenn ne maam bis bi tey la woon mm-hmm. loolu yaakaar naa loolu lu mel noonu lañ xalaat ne warta mën a am mm-hmm. moo tax ñu am lii ñu si ñu organiser si lii nga xam ne jot nañ ko see organiser mm-hmm. waaye loolu ba tey jëndu ndigal li ndax njàngum alxuraan xasida bi sëriñ bi daa joxe ndigal ne lu ci waaye man na ko def kon ñun li ñu organisé njàngum alxuraan la ak xasida waxtaane sëriñ bi ñu war kaa amale fii si kër gi samedi incha allah mu war a tàmbali timis ba jànkatu xasida yi fu fu fu fu fu fu fu rek ñu ñu ñu ñu ñu yemale ko fa waaye sëriñ bi joxewaat ndigal si ngir postef bi nga xam ne ame na ko muy sëriñ Moustapha Diop xalifa sëriñ ñaan Diop màggal gi mbooleem addiyee yi nga xam ne daa nañ ko siy joxe mm. incha allahu taala des ka fas yéene dajale mm. dugal ko si liggéey Cheikh Mouhamadou Mountakha muy liggéey université bi waaw muy mboolem la at yi joo xam ne taalib yi daanañ ko indi dafa joxe ndigal nañ ko indi bu ko defee incha allah bu màggal gi defee jàlle ba def ay fan bu ko defee ñu dajale ko yët ko Cheikh Mouhamadou Moustapha mi nga xam ne moo fi nekk Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu ko defee mu ànd ak kilifaam Serigne Ahmadou Moukhtar dem yët ko ki nga xam ne moo nekk Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou macha allah waaw Serigne Abdou ko waxee am na solo lool muy bés bi nga xam ne moom la fas yéene fàttaliku Serigne ñaan Diop war a doon samedi euh, fukki fan ak euh, ñett ci février di le 13 février 2021 moom nag mu koy amalee ci këram gi nga xam ne mu nekk fii ci Guy Mbind euh, ni mu ko waxee rek ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké joxe woon ko ci moytu ndaje yi ndax jamono moo ko laajut moom moo tax muy amal bés bi ci njàngum alquranul karim njàngum xasida lépp rek mu nekk ay ñaan te loolu sax njàng alxuraan moom day tàbbi ci ndigal li Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe ndax euh, jamono bi yëpp mu ngi digle ne nañuy jàng alxuraanul karim kon loolu day tàbbiwaat ci euh, loolu rek nga xam ne lépp rek jëfe ndigal la ndax yoonu muri moom noonu lañ leen xamee kon ñuy ñaanalaat Serigne ñaan Diop bu baax a baax yàlla yokk ay leeram taas ci barkeem euh, sëñ Abdou Aziz loo yëkkatee jotaay bi. waaw xanaa di gën a sant bu baax a baax rek tey ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne ña fi nekk di ko tàmbalee Cheikh ba si mboolem ay rakkam suñ boroom yàggal leen fi loolu te ànd ko wér te sàmm leen ndax toll nañ jamono joo xam ne képp ku am kilifa gu mel na suñu kilifa yi war ngay ñaan bu baax a baax ñu yàgg fi ndax jamono ji fi mu toll ñëpp tegandoo nañ seen bët waaye bari na lu ñu aar loo xam ne mi ngi bàyyi si ñoom buñ ko yëgee ak buñ ko yëgut kon nag jaadu na ku am kilifa gu mel ne kilifa gu mel ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mm-hmm. waxtu wu nekk ngay ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te dafa ko wér noonu nag la ñuy wàccee ñaan gi ba si Cheikh Mouhamadou Moustapha xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu yàgg fi loolu te ànd ak Serigne Moustapha Diop xalifa Serigne Ñaan Diop ak mbooleem njabootu Serigne Ñaan Diop gépp ak mbooleem jullit di leen sant yéen bu baax a baax si dalal gi ngeen ñu dalal lépp di jëm si bis bi nga xam ne moom la ñu amal di bisub Serigne bi lii nag doon lu kawe si ñun loo xam ne am nañ si mbégte lool di la sant Cheikh Mouhamadou Fadal di sant mbooleem waa Assalaamy TV yëpp di am mbégte bu baax a baax tey ñaan suñu borom yëkkati seen jumtukaay bi ngeen yor su ba mbooleem foo leen am yéene yeggale ko fa rek suñu borom dafa leen tawfeex ak kattan ba ngeen yeggale ko nu kaw jot di siyaare mbooleem sati sëriñ ñaan yëpp nag daayira sati sëriñ ñaan yëpp fàttewuñu leen ñu ngi leen siyaare baax a baax te di leen ñaanal it yéene yi nga xam ne am nañ ko fas yéene kaa liggéey seen maam sëriñ suñ borom kàttanal leen dafa leen tawfeex ndax ay jàmbaar lañ lool ñu seen maam ñor lañ ñoo leen ngi ñaanal baax a baax suñu borom taxaw leen sàmm leen aar leen defal leen tawfiq bàkk Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdou Aziz Diop ni nga waxee rek dafa nekk jëmm joo xam ne maanaam euh, mënuñoo wax ci moom ndax euh, mbaax gi nga xam ne mi ngi koy wane saa ne ci dëkk bi te loolu nekk loo xam ne kenn ku nekk mën na ko seede ci moom. ci liggéey bi nga xam ne moom la nekk ni ko gisee mu nekk koo xamante nii da nga koy xool xam ne ab murid la murid saadix waaye nekk ci audiovisuel macha allah di ci def liggéey bu am solo ak Gouye Mine TV loole nag euh, liggéey la boo xamante nii euh, da ko donnee ci maamam yi ndax maamam yi liggéey lañ xamoon liggéey jaamu yàlla tey loolu ci la nekk liggéey jaamu yàlla. kon moom ñu koy santaat bu baax a baax a baax di ko gërëm ci taxawaay bi ak yitte gi ak pasteef gi ak pas-pas bi nga xam ne saa su ne mu ngi koy wane jëmee ci yoon yi nga xam ne yoon wi muy yoonu mu da kaa ñor lool nga xam ne luñ ci laal rek. da koy da koy da koy euh, faw moom loolee laal ko ba mu jóg def ci ay réaction kon sëñ Abdou ñu ngi lay santaat baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla suñu borom guddal sa fan dolli la xéewal ci barkeb Cheikh Khadim musal la ci seytaane ñu ziar tamit mbooleem njabootuk Serigne Niane Diop gépp bawuñu kenn euh, di ñaanal xalifa bi di Serigne musafaa Diop mu yàgg fi lool te ànd di leen sant yéen mbokk yi nga xam ne yenn du ñu doon bàyyi xel ñu ne fàttaliwaat leen bés bi muy samedi 13 euh, février 2021 di bés bi nga xam ne ñu ngi koy fàttali Serigne ñaan Diop kon ñuy ñaan mbokk yi taalibe yi fu mu fi mën a nekk rek ci biir réew mi ci bitim réew lu ñu mën a jàng ci al alxuraanul karim lu ñu mën a jàng ci xasida ñu jagleel ko jëm ju tedd jooju incha allah da ciy am solo lool. santaat leen gërëm leen wax leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sant baax suñu cadreur di Serigne Ousseynou Mbodj ak soxna Fatou Fall jërë jëf.